bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxaabatihi al ghurri al mayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli al matin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gannaaw bi nu santee sun borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ak Cheikhul Xadim noo leen di nuyu di leen ziyaara den ndokkeel ci weeru tedd wi nu nekk ñaan sunu mu nangul nu koor gi nangul nu mboolem jëf yu baax ci biir yépp eh, di ci dellu di balu xaq ñëpp eh, di leen ci bal xaq ñaan sunu ba mboolem ñépp tey jii di fukki fan ak ñett ci weeru koor gi ci 1441 hijriya ci seen jotaayu xurratu ayn bi nga xam ne seen télévision Lamfal baaxoo na leen ko amalal bés bu nekk ci waxtu wi ci biir koor gi <coughs> ngir dundale ko koor gi dundale ko waxtu yi waaye nekk ay fàttali ak bind ak jàngale ci li nu war ci sunu jëmmi bopp ci loo xam ne kenn mënuñu cee wuut defal na ko faaw noo ko defal sunu bopp muy faratey jëmb yi leeralool nañ leen démb lu aj jullig ajjuma ak jullig tukki faram fàcce woon nañ ñaar yooyu bu ci nekk nam demeek la ca aju ci ay atteeg lañ ca nangoog lañ ca lañ ca bañ la ca daga nag lañ ca tere ñu bëgg ñëw na tey ci li ñu tuddee jullig boole jullig boole kuy tukki dañ koy may mu boole ñaari julli muy boole tisbaar ak takkusaan julli leen ci benn waxtu waaye ci ñaari julli yu bokk waxtu lañ ko sañ nag mooy tisbaar takkusaan wala timis ak gee tukki ba it dañ cee sa dañ cee sàtt mu doon tukki jéeri bañ a doon tukkib géej gi waaye na doon tukkib jéeri boole nag ak yombal la gu lislaam may jullit ñi su fekkee dangay tukki tisbaar jot na mu wóor leen takkusaan kat ci yoon wi la lay fekk te doo mën a julli ci yoon wi nga xam ne daal dem nga ci aéroport bi walla ci garage bi jàngat bi ko jant fekk na oto bi départ gut avion bi décollé gut fekk ragal nga daal gannaaw takkusaan ngay àgg fa nga jëm maanaam gannaaw soog jant gannaaw soog jant ngay fekk nga àgg fa nga jëm xanaa kon da nga faat takkusaan kon da ngay boole tisbaar ak takkusaan julli ba noppi doo a ci oto bi mbaa ci mbaa ci avion bi defin mooy da ngay tàbbal tisbaar ci mujj gu waxtoom nga xam ne boo julli da ngay sëlmal rek takkusaan waxtu takkusaan du nga daal julli takkusaan kon bu ñëwee julli nga ko ci waxtoom ñay aj buñ demee arafa noonu la ñu def arafa dañ fay boole tisbaar takkusaan julli leen dañ koy wàññi mu dem Musdalifa it fa la ñuy jullee bisu arafa dañuy boole tisbaar takkusaan boole timis ak gee ndax tisbaar takkusaan arafa lañ koy jullee wàññi ko boole ko xam dañuy julli tisbaar sëmmal daal liqaama julli takkusaan sëmmal Musdalifa la ñuy jullee ji timis dañ fay boole timis ak gee mooy dangay dangay liqaam julli timis sëmmal daal liqaamaat julli gee lépp ci benn bis bi la ndax ba ab tukki ci tukki lañ nekk moo tax dañu jóge jóge nañ munaa war a dem arafa ci bis yendu fa war a julee ji fanaane musdalifa war a xëy sànni jamra kon daa mel ci tukki lañ nekk jóge màkk ñëw foofa day doxan dem boole ca day tukkikat man ay xojjaaj yu jóge feneen la ca ëpp bu defee ke ci yoon wi la la la la la la dab nag kon tisbaar ci mujj waxtoom nga julli takkusaan njaal bi na waxtoom mooy su fekkee da ragal ne dangay àgg soo jant wala bokk takkusaan dana la fekk ci yoon wi daal su fekkee gannaaw gel ga nag nga ragalaa ak gannaaw gel gi mooy bu demee ba ker gi sedd nga xam ne jant soo gi waa ker gi sedd na lool timis di jege jaxtoo nga nga nga nar a àgg nag eh, kon day mel ni eh, da dangay dangay nga da ngay da julli tisbaar bàyyi ba dem julli takkusaan ndax gel ga ba te yaa ngi ci waxtu takkusaan donte moxtaar ba jeex na waaye waaye yaa ngi ci daruuri yoom wala boog mu tànn lu ko soob ci ci ci ñaari fànn yi mooy bàyyi ba àgg julli tisbaar takkusaan ndax boobu mi ngi waxtu maanaam julli takkusaan bàyyi ba àgg julli bàyyi ba julli tisbaar bàyyi ba àgg julli julli takkusaan lu ko ci soob rek jamu taqdim wala jamu taxir lu ko ci neex def jamu taqdim mooy mooy boole bala ngaa dem jamu taxir mooy bàyyi ba àgg boole su fekkee da àgg lu jëti saw jant mën ngaa bàyyi ba dem door a boole jamu jamu taxir lañ koy tuddee nga soo àgg jël tisbaar daa jul takkusaan nga xam ne tisbaar takkusaan nga xam ne balaa nga xam ne da nga jul ñaar yëpp te jant du so wala jant door a so euh, buy tamit sa géej nag moom xaru fajar moom lañ nattalee soog jant bu dee ci tisbaar takkusaan waaye nag eh, fàddug safaq moom lañu nat moom la ñu nattalee gel gi ci ci ci ci ci ci ci ci boo koy nat ci takkusaan eh, tisbaar takkusaan maanaam fàddug safax moom la ñu nattalee jant fàddug safax mooy mu ne ba xonq-xonq yi ci sow bi jeex maanaam jën soo day am xonq-xonq yi ne ci sow bi su dee lool lool dañ na loolu ñu tuddee dafa du safax moom lañ nattaleeg gel ga xaru faja lañ nattaleeg soog jant juróom-ñetteelu xaaj nag juróom-ñetteelu xaaju sa xaaju xaaj guddi gi juróom-ñetti xaaj su benn ba jàllee avant su nee ba ci juróom-ñetteel ba loolu mooy mooy mooy gel gi ca ngoon boole timis ak géej nag dañ ko def ci taw bu bari ñëw na ci jàkka ji mi ngi taw xam na ne julli timis dem di ñëwaat di julli gee dana xaw metti ñu julli timis julli gee doori ñibbi seeni kër mooy timis dañuy dañ koy njëkka noot dal di koy julli bu ñu sëmmalee daal noddal gee waaye bu ñu ko nodd ci rojo rojo jàkk jën ndax waaye ñi seen i kër dañuy jàpp ndegee jon te fekk ñoom dañoo sañ dañ ko ki nodd day noddal gee ndax ci rojo yi ñu yeexee daal di ko julli daal bu leen fa bu leen fa nag faadu safa bu ñu fa toogee ba sabu faadu safa fekk leen fa baamu geejo daal di war moo tax suñ jullee nañ daal di tasaaru ko ne ñibbi su nag ban bu fekkee dafa ànd bu fekkee ngir ma dafa ànd ko lëndëm lëndëm gu tar kon ba tey dañ la may nga bañ dañ may boole leen ci jàkk ga ci jàkk ji lañ koy boole nag meloon ni ma ko waxee léegi dañu nodd timis timis ci rajo jàkk ji ci njëlbeen waxtoom lañu nodd yeexe ko tuuti dal di koy julli sëmëyal daal nodd geeja te bañ ko nodd ca kaw daal di koy julli daal daal di dem te bu ñu ci kër yi nag bala ñuy wetar nañ bàyyi ba ba gannaaw safax maanaam waxtu ñu waroon julli gi normal nañ bàyyi ba waxtu weesu ñu door julli wit safa witar ja safa boo ne maa ngi julli safa witar kon loolu mooy jullik jullik boole su dee jullik ragal nag jullik ragal mooy jullit ñi suñuy xeex ak yéefar yi ba waxtu jot a ah, du tax ñi sañ a bàyyi julli de gis nga julli ni mu fore ki dem ci toolu xare kay wax dëgg yàlla bu fekkonte ne julli lu woyof la kon buñ nekkee ci xare mën nañ nañu bàyyi bu julli xeex bi jeex ñu dooru julli waaye suñu nekkee ci digg xeex ba julli jot sañu ñoo faat waxtu wax moo dañu tuddee julli ko julli ragal bu dee jullik tukki la aw meloom mooy su dee tisbaar la ci misaal julli yi day séddli ko ñaari xaaj daal di demee nee ak seen imaam benn xaaj ba des jàkkaarloog jokkaarloog mbooloo ma na ci xeex ba su fekkoon ñeent fukk la na ñaar fukk ña dem nee ak seen imaam kon bu fekkee ab tukki la a fañ xaar ji dañ faa tukki kon dañoo sañ wàññi kon tisbaar la kon imam day jiite benn kuréel bi benn rakkaa su àndeek ñoom ba rukkoo ba ba ñaari sujjoot ba siggi taxaw day day des ca taxawaay bi moom imam ñii nag daal di mottali seen kenn ku nekk mottali sa ñaari rakkaa mooy kenn ku nekk jàng faati ak sa rukkoo sujjoot sëmmal dem imam mi ngi taxaw rek suñ sama daal dem jàkkaarloog mbooloo ma ña fa desoon ña doon xeer daal di ñëw nag kàbbar ci gannaaw gannaaw imaam imaam nag dooru rukkoo ak ñooñu beneen rakka su taayaa sëlmal ñoom ñu jug kenn ku ne mottali sa rakka seen benn rakka ñu dem fekk julli matal la nag day jiite ko bu njëkk ñaari rakka jiite ko mujj bi ñaari rakka mooy su julee su su jiite ñi ba ñaari rakka yi mat dafay toog di sàbbaal mboolem kenn ku nekk jug mottali sa benn sa ñaar rakka ñu daal dem na jàkkaarloo noonu yee ña fa desoon ñëw imam jugaat taxaw ñu kaba ci gannaawam mu jiite ñaar rakka daal di sëlmal moom ñoom kenn ku nekk mottali sa ñaar rakka ñoom ñëpp ñu dem nekkaat ci xeex ba noonu lañuy ñuy jullee kon jullig eh, ragal bu dee jullig wàññi ak bu dee jullig matal su ko defee nag lu dul nag muy timis bu dee timis kon day jiite kuréel bu njëkk ñaari rakka jiite mujj ba benn rakka su dee timis su kuréel bu njëkk ñëwee ba mu am ñaari rakka dafay toog di sàbbal eh, mboolam kenn ku nekk jóg mottali sa benn rakka sëlmal suñ sëlmal daal di dem ñoom jàkkaarloo ñeneen ña ca des ñëw imaam jug taxaw jiite leen rakkaam bu mujj moom dal di sëlmal su sëlmalee kenn ku nekk jig motal sa ñaar rakkaay ñu la dese ba tey ku ne dem xam nga tukkeeg saxa ci yam moom ñett rakkaa doon ala xaal kon daal bu fekkente ne génn julli ko mën a doon ñaar rakkaa lay jiite day julli benn xaaj day jiite benn xaaj ba mbooloo mi jiite xaaj bi des mbooloo ca des moo xam julli wàññi la moo xam julli boole la loolu muy timis képp ca lañuy ca la ñuy wute muy timis ñaar kuréel bu njëkk ñaar rakka kuréel bu mujj benn rakka te dañu nodd yi na ngir julli woon kenn ma bu julli jotee kenn day day dem day day dem noddu dañuy liqaam it su fekkee xeex ba dafa tar lool nag tar ba nga xam ne séddli ko ñaari xaj yombul nag soit nañ kenn kenn julli mooy ñoom ñëpp dañuy xeex di julli da ngay liqaam ci biir xeex bi kaaba di jàng faatiha di gor jaasi di moytu jaasi faatiha yaa ngi tari saar yaa ngi doorante jaasi di di di di julli ku la bëgg a cor nga daw nga nga nga daw moytu yëpp ci biir julli yaa ngi julli yaa ngi xeex nga ne ba wax jullu xibla ak ñàkk jullu xibla lépp amut ma ma ma sàtt duñ ko ja di julli fa nga war a jàng war fa nga nga jàng fa nga war a rukon su joon nga junj ko rek ba ne asalaamaaleykum kon ni sab xeex moo xam boo yaa ngi war ci sa fas ak yaa ngi dox lépp ñoo ci yem kon ku ne daal nang ko mën rek nga koy jullee waaye nag sañu sañu ñoo faat waxtu ngir loola loolu lépp day wone foor gi julli foor ak ni ko lislaam fonk ak dayo bi mu ko jox ba tax na kon ab jullit waru ko bàyyi te amul benn ngant ndax mboolem jàmm yàlla yépp moo ci gën jàmb yàlla yépp jullee ci gën amul fenn fu ko nit ki sañ bàyyee te amul ngant amul ngant moo tax ñuy jàngale julli feebar maanaam ki feebar sax sëñ bi dafa waxtu julli feebar ci ci julli dañ ci dañ ci àgg bu ñu àggee ci waxtoom ci fi war a jàngale dañ ko jàngale moom itam àgguñu àgguñ ci topp na mooy jullig wóotal ak àtteeb ko bor ci julli julli wuutal mooy imaam day julli ba ci digg ngànt dab ko day làmb ci gannaawam rek comme daj mu xëcc la indi ci palaasam daal di rocce moom dem bu ko dee kam indi palaasam léegi mooy mooy nag imaam jiite la des ci julli ga ngànt la koy dem mu wutal mën naa doon toj la su fekkee dafa julli ba ca digg imaam am njàppam toj day xëcc keneen wutal waaye su defaatee lenn nag ci biir toj ga mbooloom mbooloom topp ko ci julli mbooloom yëpp a yàqu su toj lee moom moom dong la julleem yàqu su xëccee keneen ca saa sa fekkee su ko fekkee ci rukkoo sax bu mu siggi bu siggee mbooloo mu topp ko rek julli ñëpp yàqu na kon na xëcc kenn ca rukkoo ba kooka ñëw ko nga xam ne kookaay sigg mbooloo mi siggi ca siggi kooka walla boog dafay bori ndax dem dem ba ci muy bori moom imaam ba tey mën naa xëcc ci keneen wuutal ko dem defar ju topp toppatoo ju boppam wala mu fàttaliku ko am toj day julli ba ci digg mu yàgg mu fàttali ne moom ko jàpputoon ba tey na xëcc keneen wóotal kooko àggale julli ga moom mu dem julli ji moom mu dem jàppiwaat julli def mooy day day xëcc kenn daal jàpp bakkan day jàpp bakkanam téye ko ndax di xëcc keneen mu ñëw taxaw ci seen kanam ci te ci julli ga moom mu dem raxasi bakkan ba mbaa mu jàpp su fekkee ku toj la la su fekkee koo xam dafa bari tey kuñ jiite nag kii bari tey ku kuñ jiite mm, fekkente ne mbori mi daa bari na génn raxasi ko raxasee bakkanam bu ko raxasee ba mu set mbori ma arité na delsi na delsi ànd fekk fekk imaam sëmal gu na ànd ak imaam la des ci julli ga ma joxe ci misaal dafa ñëw ànd ak imaam tisbaar benn rakkaam yi rakka bu njëkk bi ba imaam rukkoo ba siggi mbori dab ko mu dem raxase bakkanam delsi fekk imaam e, taxaw na ci rakka bu mujj bi day ka ba ànd ak moom rakka bu mujj boobu kon ànd ak imaam rakka bu njëkk ànd ak moom rakka bu mujj kon ñaari ci digg ba moo ko faat kon bu sëmbalee nag ñaar yee faat lay fay da ko fay mooy day jóg njàng fatiha ko saar ndax rakkam amoon rakkam njëkk rakkam ñaareel kon lay fay fi ne nii te fatiha saar la ci iman jàng kon da jàng fatiha ko saar daañu sujjóot toog imam dafa toogoon ndax ñaareelam la woon yoona sa ñetteel la doo fi toog nga jóg jàng fatiha dong toog tàyyi sëlmal su fekkee da ngay ñëw nag defar sa bakkan ba noppi ñu fekk imam toog di taaya da toog taay ànd ak moom taaya bam mu sëlmal nga jóg nag euh, fay lam la rawe kon julli ga da ngay jokk da ngay jokk mooy doo tàmbaliwaat waaye day mel ni yaa ngi woon ci julli ba tey dangay ñëw jokk ca rek kon da ngay jokk fa nga yemoon eggale loolu da ngaa mooy xibla nag mbaa nga jogge sobe ci diggante bi diggante bi nga topp sobe da ngaa topp topp sobe da ngaa mooy mbaa jog nga sobe moom fa da ngay tàmbaliwaat julli gi waaye li fekk loolu amun amul da ngay jokk soo jokk na rakka bu mëtuloon da koy sosaat raka boo xam ne ba nga fa jógee fa soogutoon raka bi da koy wala mëtutoon maanaam raka bi nga xam ne imaam daaru ko siggi mbari dab la kon raka bi koy tàmbaleewaat su rukkooxaat euh, sujjóot sëlmal bu ca rek da nga koy koy sosaat mooy ko raka bu mat nag mooy boo xam ne dem nga ba sujjóot ñaari sujjóotam yëpp ba siggi kon booba rakkaa mat na su raxasee ba diis na kon fekk imam sël sël sëlmalagul kon day daal di ànd ak imam bu sëlmalee mu daal di jóg eggale moom lañ ko reyoo matal ko sëkk kum bir ne koo xam ne wóor na ko si delloo day fekk imam sëlmal subaa mën naa jokkee fa nekk sa kër daa jege jàkk ja nga dem sa kër defar sa bopp wóor na la boo demee da nga fekk imam sëlmal kon mën ngaa jokkee fii nga nekk ci sa kër mooy ba taa doo tàmbaliwaat da ngay sës sës sësali ca la nga jotoon am rek mottali sa julli loolu lu jàppande la loolu nag muy julli ajjuma julli ajjuma gannaaw doo yëre demaat ba ca jumaa ja doonte imaam sëmal na ba dem nga demaat ba ca jumaa ji nga toogaat fa nga toogoon fekk ci ci ci taaya nga jóge dem nga toog fa nga toogoon taayawaat sëlmal doo doo doo dem ñibbi fekkee benn rakka nga mën nga dem ba fa nga taxawoon nga nga nga nga jokk nga jokk sa ñaareel mott li sëlmal door dem julli door door door dem doon fekk imaam imaam sëlmal na ba ñibbi sax ndax ajjuma ci lu dul jumaa tax ndegam nag mbari mi daa bariwul nag doo génn dangay jël say bakkan say baaxaan def ko nii muy saañ ko ci bakkan yi téye ko ci ngir mu bañ a toq Euh, ba ba julli ba sëlmal doo dem doo dem toppatooy sa bopp waaye koo bari lu jiitu sëlmalu imaam nag nga dem raxas ko dell si toog sëlmal imaam nga tàyyi sëlmalu ko na la bari na ne roseet say bakkan noppi des daa toogaat ba jekk ne asalaamaaleykum ndax daa fekk imaam sëlmal na ba noppi moom waaye su fekkee sëlmal jege na da muñ nag xaar imaam sëlmal da nga door jóg fekkee imaam rawatina su fekkee imaam sëlmal rek imaam sëlmal na moom da ngay asalaamaaleykum door doo nekk di raxas ngir doo dee si sëlmal kon da ngay sëlmal rek daal di jóg nag dem toppatoo ji sa bopp loolu mooy jullik eh, loolu mooy mooy mooy mooy jullik ni ko waxeeti léegi jullik wuutal julleek wootal ak àtteeb ko bari ñëw nag ci li junjoon muy julleek aji tawat ko feebar nu muy jullee koo xam ne dafa feebar dañuy wax ne julleem ñeenti anam la su fekkee mën naa taxaw ne nit ñi taxawi julli bañ a wéeru fenn na liqaam taxaw bañ a fenn julli su fekkee da koo tële na taxaw wéeru julli day taxaw wéeru julli su ko tëlee mu toog te bañ a wéeru fenn julli maanaam li wàllu di wax gàpparu gàpparu bañ a su ko tëlee nag gàpparu wéeru mooy na toog wéeru julli ñent yooyu toftale ko warugar la <coughs> sañu caa def benn bàyyi benn taman ba ko ba ko féete kaw fekkee man ngaa taxaw ba ñu wéeru soo taxawee wéeru sa julli yàqu na su fekkee ngaa taxaw weeru julli soo toogee gàpparu ba ñu wéeru sa julli yàqu na soo manee gàpparu ba ñu wéeru soo gàpparu wéeru sa julli yàqu na kon faaw da ngay tëli ba jiitu ca teg ba ca topp soo ko wutalee boo ci def te fekk man nga ba ko jiitu sa julli day yàqu kon ñeent yooyu dañ ko toftalee soo tëlee ñeent yëpp nag nga tëddee sa ndeyjoor julli soo ko tëlee nga tëddee sa wetu càmmoñ julli soo ko tëlee nga jaaxaan julli ñett yooyu ne toftal ko nekkul lu war soo neexee wutal man nga sañ ngaa mën a tëddee ndeyjoor ba ak bàyyi ko tëddee càmmoñ julli sañ ngaa mën a tëddee càmmoñ ba noppi bàyyi ko jaaxaan julli te tey julli gi ne weer kon ñett ñeent yu njëkkee moom la toftali ko waaye ñett yi moom toftali ko warut kon ka lay topp ba ci mënu dem ba mënu yëngal benn cër li fekk yaa ngi ànd xel mi sañoo faat waxtu kon day wane ba tey forum julli soo demee mënoo yëngal benn cër it waaye mën ngaa wax soo waxtu jotee li xaamal li xaamal li xaamal fi nga tëdd soo da ngaa jaaxaan nag da say tànk mooy féete xibla say sa bopp jëm sowu soo dangay ngay tëddee ndeyjoor sa bopp day féete saalum say tànk féete gànnaar su dee da ngay tëddee càmmoñ say tànk yi féete saalum sa bopp féete gànnaar lu ci doon jubloo nga xeb la nga xam ne li xam ci saw làmmiñ gannaaw ngaa wax <coughs> ne allahu akbar ci saw làmmiñ <coughs> jàng faatiha jàngu saar daa di imaginer rukkoo mënoo rukkoo de mënoo yëngatu mu yëngatu ci waaye da ngay imaginer rukkoo da koy xalaat mel ni ku ku rukkoo ci sam xel ne allahu akbar wax wax ci la ngay wax ci rukkoo ne sami allahu liman hamida ci saw làmmiñ lépp nag yaa ngi tëdd jógoo fi nga nekk imagine sikki ci rukkoo daal di imagine rukkoo ab sujjóot wax ci wax li ñu wax ci sujjóot siggi toog wax ci li ñuy wax ci li ñuy wax ci diggante ñaar sujjóot yi lépp jógoo fi nga tëdd waaye danga koy imaginer rek waaye li ñu mën a wax moom da wax ci sa làmmiñ ba ne asalaamaaleykum waaye soo ca faatee waxtu ngir sa wér di googee am nga bàkkaar bu rëy kon nga gis kon sunu borom fi mu teg julli lislaam fi mu teg julli koor boo wéradee sañ nga koo dog asaka boo amul nisaab wàcc na la sart yëpp aj màkk boo ko mënut wàcc na la waaye julli loo ko tële tële tële li fekk yaa ngi ànd am sam xel du la wàcc kañ la lay wàcc may tàggoo sama xel mooy dof mbaadee rek dof mbaadee rek mooy mooy tax julli julli julli farata wàccu la incha allah li ci des ci ay leeral incha allah bu ñu delsee euh, leeral ko incha allah kon ñu ñëw na kon ci seen ñaanu bis bi tey ñaanu bis bi tey mooy ku ne ci ay xat-xat mbaa ay jafe-jafe bëgg suñu boom génne ko ca <coughs> nay faral bari lu muy jàng baat yi laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu soo nekk ay jafe-jafe wala ay xat-xat di ko faral di jàng incha allah sunu borom dana la génne ci xat-xat yooye dana la génne ci jafe-jafe yooye eh, loolu boroom xam-xam yi leeral nañ ko xadisu bis bi yonent bi saasun dafa waxoon ne inni dafa wax ne ahabu naas ilallaahi taala yowm alqiyamati wa adnaahum minhu majlisan majlisan imaamun aadil wa abgadu nnaasi ila llaahi taala yowm alxiyaamati wa abaduhum minhu majlisan imaamun jaair an abi saidin axrajahu tirmidi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gënal yàlla ci nit ñi te ki ciy gën ki koy gën a jege moom yonente bi ab jotaay ci àjjana mooy imaam jumaandu waaye ki yàlla gën a bañ ci nit ñi te mooy ki ci gën a sori ki ko ci gën a sori jotaay bis penc ci mooy imam juy jàng imam juy jàng abi saidin xudri moo solo xadis boobu tirmisi yi moo ko génne kon nag ñu xam ne kon imam kon maandu baax na ca lool dana tax mu jege yàlla tax dana tax itam mu mu gënal yàlla ci nit ñi dana jege bis penc itam mbokk yenn saa su ñoo bokk fi ñu dëkk waaye su jengee nag moom safaan ba lay doon day da tàbbi ci merum yàlla doon ko sori yàlla bis fi ñu day doon ko sori yonent bi saa salaam su fekkee tàbbi na sa tàbbi na sax allah ci ci ci coobari suñu borom <coughs> kon teg foofu suñu baa incha allah dig leen daje incha allah suba ci waxtu yi ci seen télévision Lamp Fall ñuy ñaan li gën ci nun yàlla na ko suñu ba defal dëppale ko lu nu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ya